yéen ñi safoo Sénégo numéro un de l'actualité sur mobile jàngeen jëf ci ànd geeg topp gi nun leen ko diggee jamono ju ne waxtu wu ne rek xew-xew yi ci réew mi ak bitim réew ñu indi leen ko ngir ngeen xam nan la ak naka la lan mooy cëslaay gi nan la demee fan yu génn ku ne dégg nga dëkk gii nga xamante ne ni fa la ñuy agsi tey jii nii muy Pout Dagné nga xamante ni coow lu mag moo fa am ndax dëkk ba danoo baaxoo benn taarix goo xamante ni yàgg na fa depuis les années 60 maanaam dañuy am ay armeelu géwél ak armeelu géer ba fan yu génn am géwél gu mag gu génn àddina di soxna Xadi Fay ñu daal di koy bañ suul mu yëkkati coow lool ba force de l'ordre yi daal ci intervenir ba préfet bi intervenir ci ba fi nu mujjee mooy dañ ko mujj yóbbu ca dëkk bi nga xamante ne moom mooy cosaanam média yi nag ku ne interprété nga ku ne jàngat nga ku ne indi nga sa xibaar tey nag yàlla dogal ñu ñëw fii ci dëkk bi nga xamante ni fii la xeexoo bi amee ndax waa dëkk ba danoo fas yéene woon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral par rapport ak situation bi moo tax tey jii ni ngeen gis ñu tey ñu ñëw ci dëkk bi mànd noonu ak sama caméraman Seydina Alioune ak sunu chauffeur ba li nga xamante ni moom mooy aada ngir ñëw xam lan moo xew ak lan la waa dëkk ba wax par rapport ak situation. Euh, comme mon chef de village l'a dit euh, directeur d'école représente, je le porte-parole en quelque sorte du, du, village. par rapport à, à cette situation, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que on ne fait pas une conférence de presse, mais c'est un point de presse. Juste pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Oui, parce qu'il y a trop de choses qui a, qui a été dites sur ce problème-là. Ceci étant dit, vous me permettez de vous présenter ce qui a été retenu par le village. Alors, Suite donc à la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux depuis samedi, nous avons pris la décision de faire un point de presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais capables de discernement. Le sous-préfet de Noto Diobas, le commandant de la gendarmerie, l'émissaire de Serigne Salou Touré et les deux protagonistes se sont réunis avant l'enterrement pour trouver une solution. Après moult échanges, une, résolution a été prise. Toutes les parties étaient d'accord pour qu'on enterre la dame dans le seul et unique cimetière qui existe dans le village depuis les années 60. Après les prières de l'émissaire, la famille rentrée à la maison a changé d'avis et on ne sait pas le pourquoi. Finalement, les fils de la défunte ont préféré enterrer la dame dans son village natal à Kissan. À notre niveau, nous informons l'opinion nationale et internationale que ce problème est loin d'être un problème entre guerre et guerre. Que le chef de village et la population de Pout-Dacné ne sont jamais opposés à l'enterrement de la dame dans le seul et unique cimetière connu de tous, contrairement à ce que pensent certaines presses. Les gens qui, ont, qui sont à l'origine de cette vidéo sont animés, sont animés par d'autres choses. Et certains d'entre eux ne sont même pas du village. ils ont embrassé une nouvelle religion appelée Yalla Yalla. Et c'est dans cette optique qu'ils veulent créer un nouveau cimetière site. Dans, oui, ils, ont créé ce, ils, ont, ils veulent créer ce nouveau cimetière dans ce site, un site qui est réservé à un lotissement pour le village. C'est dans cette optique que nous avons dit qu'il n'en est pas question. On ne peut pas créer ce cimetière dans ce site-là parce que nous voulons, dans l'avenir, faire une extension du village de, de cette, dans cette partie. Ils nous ont répondu avec un niet catégorique, disant que ils vont enterrer la dame, ils vont créer ce cimetière et personne n'y peut, peut rien. C'est pourquoi nous sommes opposés à la création de ce cimetière. Nous interpellons à cet effet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intervenu et qui ne sont pas venus pour s'enquérir de la situation réellement. Nous interpellons le prêcheur Irandao, à beaucoup faire attention dans des choses qu'il ne maîtrise pas, car, il faut le dire, il n'est pas plus musulman que nous. À de la RADO et les organisations affiliées à sa structure, qu'il fasse preuve de professionnalisme pour le traitement, pour le traitement de certaines informations qu'il donne. Pour Dacné est un hameau dans Poudjak. Nous avons le même chef de village. On ne peut pas les diviser. D'une autre part, nous interpellons l'État du Sénégal que les auteurs de la vidéo qui fait le tour de la toile, que ces auteurs-là soient traqués et traduits en justice. Parce que tout ce qui a été dit n'est émaillé que de mensonges. Ces gens doivent être traqués et traduits en justice. Voilà en gros le contenu de notre déclaration. Et c'est là où on peut, on peut s'en tenir à là. Maintenant, si vous voulez la partie... Ah oui, en Wolof Voilà, mais, mais euh, une précision. Mhm. parce que nous, euh, mhm. a dit, mhm. que cette affaire date très longtemps. Parce que depuis les temps immémoriaux, euh, ici dans ce village, on n'a jamais accepté que les griots soient enterrés dans ces cimetières-là. On ne peut pas répondre à cette question, dans la mesure où les autorités compétentes sont en train de faire un travail sur le dossier, et quand ils auront terminé, il y aura un comité officiel qui sera publié à l'intention de tout le monde. c'est ci wolof rek nga. wolof. mooy euh, kees yongu bi fi gis nga mbir mi. du kees yongu géwél ak géer. Mhm. mbir mi xale yi seen lislaam bi la may wutal doole ñun ñoom dañoo bëgg. ñu bay leen ñuy gas fii ñoom yàlla yàlla yi ah am na ñoo xam ne ñu nga gebel ay gebel lañu ñu ngi dëkk ak ñoom mais d'accord uñ ci gis nga ñii bu doon balu gebel ak guerre ñun suñu maam yee leen yee fi indi dégg nga ñoom ak suñu bay ñoo doon seen ak suñu baay ñoo doon fanaan get bot setee suñu bay bu ñu ratee ku ci ne ñoom ñaar seen ñaari maam yi ku nu dañ defal gambu gambu kii meew dégg nga ñu yóbbu seen ker ñun ñun ñi ngay gis euh, euh, ku fi juddi woon suñu ker balaa ngay def dara ñun nampal ci weenu weenu géwél waaw bon xam nga kooku kooku bañul kii bañul géwél suñu jiw gerte euh, kii dugub balaa ñuy ñu doon jiw géwél yee ñëw bojj dugub yi door ñoo jox ñu doom ji bi ah est-ce que loolu moom pour pour pour bañ géwél la mm-hmm. ah ñoom xale yi ala yéwén yàlla yàlla yi daf sonal ba mu ñoo sonal buñu ñu ci ñetti nit rek lañu lu leen neex ñu def lu leen neex ñu def lu ma lu ma ci mën a wax bari na bari na bari na ah mu wax ci ñoom ñu def ñooy tooñ dañu même bu ñu dee jàng fii boo dégloo seen jàng yi seen eh, eh, dañooy leebu dañooy gaarwaale ci biir hmm. ah ñu di ci dégg ah même toog nañu fii ne xel yi da leen di sari xeer loolu ñu jóg ci naa xel loolu na bu mu amati bu mu amati xel yi bàyyi loolu mm-hmm. ah mbaayi toujours bu ñu jógee ci àll mm-hmm. bu ñu wàcc bu wàcc bu ñu wàcc boon fii rek euh, seen si kër gi ngay xel di dégg ba ñuy dugg seen kër ah. mm-hmm. def ñoo tànk dañoo tàngal ba mu ëpp dañoo tàngal ala yewen sonal nañu trop imaamu dëkk bi xanaa moom yëgul loolu imaamu dëkk bi. imaam imaam baa ngi nii dégg na ko euh, fekk xam xam na ci dara mu ngi nii. ah mbir mi mbir mi moom wax dëgg yàlla doy na waar. Ah, mais léegi ñoom bu ñu mënee dund ak ñun. ci dund bu rafet. Mhm. nañ toog dund parce que seen maam yi ak suñu maam yi dund bu rafet lañu doon dund. dégg nga bu ñu ko malul mhm. nañu seet pexe ti bàyyil ñu suñu dëkk bi. d'accord alors luñ fiy def ak liñ fiy wax bari na. manuma koo lim c'est parce que manuma koo jàpp yëpp jërëjëf kon ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni moom moo jib ci conférence de presse boobee nga xamante ni moom la waa dëkk bi woote par rapport ak situation bi ndax coow li bëri na ci lool ñu bëri ci askan wi sax dañ ko ñaawlu ndax jàpp nañ ni du jëf yoo xamante ni dëppoon ak islaam ndax Sénégal war na weesu fa ñuy waxtaanee mbiru kast maanaam mbiru kii tëgg la wala kii igéer la ndax yàlla moom ci fonk doomu aadama lam nu wax ci alxuraan mooy wala karam naa banni aadama te dignité humaine moo xam sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbootaay kuréelu droit de l'homme yi dañuy fonk li nga xam ne moom mooy dignité humaine ndax nit bu génnee àddina war nañ ko sàng sutura organiser ba ni muy àggee fa nga xamante ni fan koy jëbalee boromam muy wàllu bàmmeel yi te ay bàmmeelu géer bàmmeelu géwél Sénégal war na weesu loolu loolu tukkee ci gis-gis ñi nga xamante ni bi problème bi amee ba tey ñu ci bëri nangoo ñu neloon ndax daf leen a métti ndax Sénégal wax dëgg fa dëkk bi mëngoowul yii nii li ñu dégg nag ñoo ko déggandoo la ciy toppaat bu fekkee ay yeneen xibaar lay mën a doon Sénégo ni mu koy baaxoo defee waxtu wu ne rek dina dikk toppaat mbir yi indil leen ko ngir ngeen am ci ay information ndax 2019 lu mel ni amoon na fi yàlla dogal 2021 bii mu amaat fi te ñu yàlla mu amaat peut-être que autorités yi nga xamante te tey jii nii ñoom ñoo amee dëkk bi ak it nguur gi ndax waa dëkk ba rawatina ci waa njaboot gi sàkku nañ ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi mu jël ay matuwaayam ci mbir mi ndax ñoom danoo jàpp ni ci Sénégal leen bokk. voilà di jaajëfal sunu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ni ñoom ñee Dakar ñi nga xamante ni ci wàllu lëkkaloo ndax léeg bu nu jiitoo jàppale ci wàllu image wala xibaar yi ñu fa am ñu nit buñ leen jiitu ñu dundee ak ñoom waaye tey nag dafa mel ni am na loo xam ne taxaw nañ ñu ko jàppale ko ci wàllu image yi ba mu jàppandi di leen jaajëfal wasalaam